encore une fois maa ngi leen di sant di leen gërëm te di ñaan suñu borom yàlla na ñu yàgg a daje yàlla na ñu yàgg daje yàlla na yàgg a daje yàlla bu mu nekk suñu mujj daje di nuyu sama jigéen yu baax ñi ngeen àndal ak sama doom jële daan na ma jaay daraawu gàmm waaye bi yoon bi suma daraa moom laa ko doon laaj léegi ma ni ko ay waay an sama daraa yi mun ma ah yow ko papa yónnee wuloo léegi nag dama koy wax ci kaw xanaa loolu doy na yaay daba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax itam ak suñu jigéenu bopp bi yaay jaata ñu ngi lay ziar soxna Ayda bu baax a baax ak ñi ngeen àndal ñépp di nuyu mbokk mi ñuy wax imam Dramé lañ koy woowe wax na dëgg mënoon naa nekk man fu ma neex moom mu dalal leen recevoir leen wax ci sama tur te kenn ko dindi waaye lu sori laay wax moom xam na ci dara sama kàddu yi sax mënoon naa ñàkk nga bàyyi ko moom mu wax ba pare ma jox ko ni ko tontul ma te bu boobaa dañ koy valider ca maam ya la woon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm sa kër fii ak délégation bi nga àndal yépp di nuyu njaayeen bi ci dama doon wut wut ba léegi mbuggu aw ma boisson rek xale yi Ismaïla dégg ngeen ci de dem leen ngeen lu fi nekk rek njaayeen la damay bañ mu yóbbu ma moo tax bonbon ak biscuit ak lu fi nekk rek indi ñu jox ko dawal seeti ko te ñëw di nuyu mbokk mi di mayaat moom itam daje woon nañu ca Dakar bokkoon na keroog bi ñu ñëwee di nuyu euh, ah soxna Ayda di nuyu biram biram kujja mi ñu ngi koy nuyu am lu ñu waxtaane woon man ma nekk doomu réew mi man itam am sama ay gis-gis ci Sénégal sama gis-gis yooyu nag li ma gën a bañ ku ma koy jéem a xañ mooy sama liberté d'expression nit mënu ko ci këru àddina li ko waral moo di wéruwuma ci nit ne man ne yàlla laay dénk sama bopp man sama léppit santuma kenn nga jàppale ma ci nañ ma ko bàyyil sama borom mi ma bind lu ci jot rek su ma ko waree jox dina ma ko jox moom te sama der du ci yàqu te liberté googu naka jekk ba yonent bi ñëweeg léegi lislaam noonu lay doxe daf daan wax yonent bi moom yàlla ni ko lenn laa lay ñaan mbooloo mi la topp mën la soob rek ma def ci yow lu ma deful ci ñoom waaye da leen bàyyi xel nag parce que du ñu ay jaam dañoo am xel comme yow di xalaat lu xewati bala ngay jël décision waxal ak ñoom bu ñëpp d'accord ci kàddu nga toppal ma majorité ba la ñuy wax bu njuumte naree am dinaa yebal Jibril mu ñëw jubbanti waaye bul jël benn yoon sa décision parce que yow yaay yonent bi tout court non affaire bi du demee noonu kon ku yonent bi jarut a wax waaye mu wax ko ni ko itam boo xatoon xol di jaay yu amul ñu ni la fi ñam a ñukk dellu si te bu ñu dellu see ma fatal leen sama bopp man yàlla mu ni ko nag bu ñu waxtaanee ak yow nga waxtaan ak ñoom ngeen échanger te li ñu la wax ñoom convaincre ñu la defal li nga bëgg kon yow te wéeru ci man lu jubul rek dinaa la ni jubul kooku yonent bi laa wax de kon nit ku nekk am nga sa droit am sa xalaatu bopp ñu bokk ci réew mi nag xëy na la ñuy participer ci biir askan bi du lu bët di tegu parce que jaru ko ndax yàlla gëmmul nelawul kon bu ñu gisee loo xam ni jàpp nañu ni du noonu am nañu droit yëkkati ci suñu kàddu wax ni du noonu sëñ Abdoul Aziz bi ngeen tudd nag yéen a ko cité ndax kon du ko sax tudd ban dafa joxe exemple bu ne ñu dund ak moom pannaa quarante ans mu jóge fi sàngoo suuf ma jàpp ni bu ñu doon doyee di ba yegg fenn fi lu ñu ànd ak moom war nañu servir leçon ba bu ñu menul mel na moom jéem a roy bon ay li mu fi bàyyi ci ay njàngale mësul boot di kenn ci Mali wax naa leen léegi fii ku ne recevoir na ko fi dafa am bés mu am ay ambassadeurs yu fi ñëw kii war fi añ si la ma fekk maa doon jënd cendrier yi ñu doon toxi ak cigarette bi maa ko jëndi woon cees man maa dawal oto sa mbàpp ci xaalis jox ma ni ma kat am na ci ñoo xam ne dañuy jëfandikoo pon te comme ay gan lañu bu ñu leen ko xaj billaahi alladi laa maa ngeen jàpp foofu lay respecté nit yam waaw kooku tey jii biir këram man yi ñii laay dugal ak ñi ñëpp ku ñëw na ñëw ku bëgg ñëw ñëwal kon ma nuyu leen ci turu magu Pastef fii dalal leen jàmm président Ousmane Sonko nag ma waxaat ko man nattu laa am ci moom maa ko bëgg ci sama xol billahi allazi la ilaha illa huwa xawma lan la mais maa ko bëggal sama bopp ci sama xol dama koy waxaat ci kaw ñëpp di dégg bu ma ñëpp dee bàyyi nañ ma bàyyi sama ceebu jën bi ma bëgg wala bu gejj bi nga ni ma doo ko fi lekke téyel sa dépense te bàyyi maag yàlla ma togg ceebu géej te dama jàpp ni rek dama jàpp ni am na loo xamante ni bii ku koy wax gor lay doo ku baax téye gor di koy yàq mu wóor la ni li ngay wax dara amu ci te Serigne Cheikh Tidiane si daf daan wax ni bëgg am raison bu mu tax nga sosal sa moroom mu gor lu mu deful jaru ko fi yàgg yàgg dafay feeñ yàlla gëmmul nelawul ñu ngi ko doon topp ak situation bi yàlla na ko ci yàlla jële delloo si ko sagoob delloo si ko ak wér-gu-yarama bi jaahi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba li mu bëgg ci réew mi ni dafa bëgg a bokk pour jiite réew mi senegal léegi dafa am ñu ñuy wax ni ñuy laaj ñii du ñu bokk ku moom réew mi léegi xanaa boobu moomatuñu ko ñun may laajte rek sa biir kër ñu ne la doo fi dugg wala bunt bi ngay jaare par la force y a un man waxuma waxu politique nag tey mais damay raisonner rek muy loo xam ni nag man ba léegi nattu laa ko jàppe nattu yàlla xam nga yàlla du coomo nag noo def mu seet ba xam ndax li ngay wax ci yow dëgg la wala du dëgg bis bu pay gay ñëw nag ci ngay xam ni ndekete yàlla du juum ndax waxoon na yenent bi ni ko wax ji bari na torop lu ne ñu ngi koy teg ci sa der bi waaye xam naa ni man mi la bind meloo noonu ndax maa la bind préparé la sama bopp wa innaka la ala xuluqin azim kuy baax rek yaa ko gën mu ni ko nag sama mbir a demee noonu man doxuma ci ay principe doxuma ci ay logique sama bëgg-bëgg rek la moom yàlla mu ni ko am na ñu la fi jiitu woon doon doxal lii ngay doxal lu ne daj nañ ko di nga daj lu ko ëpp waaye bu kenn dégg sa baat ndax maa yore ndimbal te wóor na ma ni dinaa la dimbal wax jooju ci yonent bi la ko yàlla adressé mais mën na topp ku nekk ci yoonu njub mën na la topp fasbir kama sabara ulul azmi min ar la ko yàlla waxoon moom sayyiduna muhammad mu ni ko muñal ulul azmi min ar rusul ñu ngi fi woon lu ne daj nañu ko waaye sama mission fa ma bëggoon mu yegg fa yegg nañu fa kon yow itam muñal rek wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabbitu bihi fuadak loolu bu dalee ci kaw Ousmane waxoon naa leen ko ca Dakar ma répété waat ko ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun ndeysaan maa ngi gis xale yi dugal benn vidéo boo xam ni mosuma woon xam ni sax Ousmane mën na loolu ci alquran fekk ma doon tari bém aaye bi moom itam ndekete wax na ko donc un phénomène il faut l'accepter Sénégal nee nañu dëkk bu naqadee waxale naqadiwul waxe de nit ñi dañu bëgg ku noppi man su ma gisee lu may wax dinaa ko wax ci kàttanu yàlla gannaaw a ngoog yàlla jox leen ñoom yitteeluñu ma parce que ki may jugé te xamuma du ma tardé sama bopp nag parce que bu ñu daje woon ci mbedd man ak moom nii rek ñu janoo du ko ŋaan dail kilaaba tanbaxu wal qaafilatu tasir aw ma jotu tontante aw ma jotam mais nag ci réew mi laa bokk ci kàttanu suñu boroom dama ni sama liberté kenn du ma ko xaj du ma tooñ nag waaye lu ma àndul dinaa ni lii du dëgg lu ma gis du noonu dinaa ci teg sama kàddu bu ñu ko jëfewul it dinaa ko wax keneen am na droit seet lu ko ne waaye loo ma sentir ni man mii lii tamit wax dëgg yàlla du nii gisewuma ko nii mais dama ciy wax was wax ci waslu ci àq na sa resque pour dégager sama responsabilité sama digganteeg sama borom kon ñu ngi koy nuyu bu baax Ousmane di feddali kóllëre suñu digganteeg moom di ko wax ni ko ñu ngi koy ñaanal yàlla miy tege nattu yàlla na ko teggi nattu du continuer dafay jeex waaye fexe ba rafet ci nag dafa baax ndax ëllëgay tax te yàlla dafa waxul kenn dara yàlla moo mu teg nattu boobu du soxora tax mu teg ko ci ndax bala mu ni nux nux dina ni war war waaye li ma waxoon rek gis nga ci réew mi ñuy wax Sénégal bu yàlla ne Ousmane day bokk nit mënu ci dara ñii nee nañu Pastef laa bokk ñii ne maa ngi ci patriote yi fuñ ma ci boole baax na nam mu ca yebu ca la rek ku la ca bëmax nga jël ku sañ na ko bu fekkee ni foofu lañ ko gisee noonu ma ni kon léegi alhamdulilah bi ma waxee ca Dakar ak yéen ba pare dafa am ku ma yónnee vocal wax ma wax bu ñagas a ñagas ni ma waaw sëñ Habib yow nag vraiment man dama la soppoon jigéen la waaye ca dëgg-dëgg nag léegi da nga fane da nga wane sa bopp ba ba sës nag léegi nëbbu toog mu ni ko yow foofu far kon bu mu nëbbu tootuma man xam nga fu ma féete ma ni ko ki ngay kaas kon yow foofu foo bokk yow da nga bëgg bokk foofu te ni man du ma bokk ma ni ko léegi faf naa bokk damay fay fes nag léegi benn yoon mu jeex parce que réew mi bu ñu ko toppee nii fa mu jëm du baax nañu bàyyeek nit ñi seen ay conviction may leen seen liberté kenn ku nekk am nga droit ni lii moom a gënal tey jii bu añ bi pare woon njóobeen yeeg njaayeen yi xëy na xale yi mën nañu togg ñetti plat c'est bon ma ngi fi mën na nekk sebon bon njaayeen bi ni sebon laa bëgg xale yi togg ceebu yàpp man xëy na ceebu yàpp laa bëgg sama mbokk mi Pape Dieng lébu la xëy na ceebu jën a ko gënal. nga ni non kenn ko fi lekk ñëpp ci benn plat bi la ñuy lekk fu mu tege kon ci gàttal maa ngi feddaliwaat kóllëre ak moom di ko feddaliwaat ak yéen ak képp koo xam ni réew mi moo la ñor ñu bokk ay principe bokk ay gis-gis duma dellu gannaaw du ma daw ci kàttanu suñu borom lépp loo xam ni daal gis naa ni pour intérêt Sénégal la lu ma ci mën dinaa ci def sama wàll. wax naa ko ba tàyyi nee naa leen du ma yàlla duma ma yonent xaw ma nu ñuy fale xaw ma nu ñuy follee waaye tabaarakallah danañ yàlla may dund ak tal ak fekke ci barke yonent bi maa ngi nuyu bokki Pastef yépp mag ñi jeunes yi góor jigéen mag ak daw di ñaan suñu boroom yàlla nañ ko fi dajawaat na gën ni déwén Ousmane yàlla na ko yàlla génn ci situation yi mu nekk yàlla delloo si ko sagoom ak kattanam ba mu continuer mission bi muy nekk yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu ngeen déggee loo xam ne it xëy na njuumte la matadi rek ma jàpp ma koy jéggalu bu baax encore une fois di leen santaat ne leen Ousmane gis naa teraanga yi yéen itam gis naa teraanga yi lii yëpp seen mbaax la wallahi seen mbaax la seen mbaax la rek ak yéene bu ngeen am yàlla mi am teraanga yal na leen yàlla yokk teraanga ba ngeen yëg ci barke yonent bi mbokk mi ma xalaat ba yónnee ci almaañ di ma yónnee coupon basin moom itam ndeysaan xam naa dafa xam ni da naan sëriñ bi dafa bari tiital xëy na loolu la waaye yal na yàlla yokk sutura bi yàlla yokk teraanga bi dinaa ko sol insha allahu taala gëléem gi tamit dinaa def leen ci kàttanu suñu borom fexe ba jaami yàlla yi ku ci sa wërsëg nekk nga lekk ñëpp ñaanal Ousmane ñaanal leen yéen ñëpp insha allahu taala yàlla nañ fi dajawaat déwén salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kontaan naa Ndiaye Dia tàllal leen loxo yi mu ñaan exemple yi lekk rek ngay jox <laughs> yaa ma jege moo tax yow yaa ma jege moo tax waaw waaw waaw wallaay ndeysaan maa ngi naan bëgg naa fa dem sax après gàmmu incha allah xaw naa fa bëj tuuti sañ ci bëgg a dëkkee dëgg la dina ñu gën a ninante incha allahu taala bu neexee yàlla bu neexee yàlla bismillah tàllaleen loxo yi kon ñu ànd jàng ñun ñëpp wala imaam Dramé mii li ma doon wax léegi moo am ne imaam Dramé mii li ma doon wax léegi moo am kii di ma jottalil nag ne kii di ma jottalil nag du taalibe ci man ne du taalibe ci man du bëkk néeg du bëkk néeg dañu bokk Cheikh Alhaji Malick dañu bokk Cheikh Alhaji Malick radiyallahu anhu yaayam di sama bàjjan. ne yaayam di sama bàjjan. waaye ci wàllu baayam man maa ko jur nag. waaye nag ci wàllu baayam man maa ko jur. mbaax ak modestie ak simplicité. mbaax ak modestie ak simplicité. moo tax may wax mu yore micro di ma jot ne moo tax moom muy wax ñu koy jottalil. waaye waru ko. waaye waru ko. imaam Dramé bii nag. ne imaam Dramé bii. fii kër maamam la. fii kër maamam la. kër baayam la. lu ma fi sañ sañ na lu toll. ne moom mii lu mu fi sañ imam sañ na lu toll noonu. lay bàyyi. ne imam Dramé lay bàyyi. mu joxe ñaan moom mu joxe ñaan. ma tàllal man. moom mu tàllal loxo dugal sama yéene dugal ci ay yéeneem. ak yéene jullit yëpp ak yéene jullit yëpp. yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu. imaam bismillah. waaw léegi sëriñ bi kon ñu def sa ñaanu maam. mooy ñaanu yenent bi salaay salaam salaatul faatiha ayatul kursiyu lixlaas wala xeeg naas buñ paree sëriñ bi tëj ñu dugal ci ñu dugal ci yéene yëpp ñaanal ci président Ousmane Sonko fee mu nekk yàlla génne ko fa ak mbooleem ñam fa nekk ndool di ay gor di ay jullit ñaanal réew mi yàlla def ci dal ci barke yenent bi salaay salaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum laa taaxuzuhu sinatun wa laa nawmun lahu maa fi samaawaati wa qalbun laa yuxiituuna bi shay'in min ilmihi illaa maa shaa qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul auzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad sharri xaasidin izaa hasad qul auzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naasi minal jinni wal insi salaatul faatih ne ñu jàng salaatul faatih amin ya rabbal alamin amin ya ya rabbal alamin yal nañu fi dajewaat déwén